defaatee beneen beneen tour ngeen wax ñu législative yi qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer ndax y aura euh, euh, euh, ak yeneen yeneen coalition mais maître sànq Omar Faye dafa soulever benn benn benn wax nga ne di nga ci tontu mooy bi muy wax waxu sanction dafa ne peut-être ñu bëri dañoo sanctionné parce que justement base dafa choisir président de la République jël teggi fee moom am ñu mu tànn li tax ñi créer seen liste parallèle ak ci Dakar même au sein de Dakar ñu gis ñu bokk même parti euh, tey euh, euh, di di di di waxante loo xamante ne peut-être dafay xaw a jaaxal population bi ba tax Dakar demee ni mu ni mu demee loolu yëpp yow naka nga koy jàngatee maître. merci mhm. ñeneen <laughs> yëngal fii amul njëriñ askan bi. ti <laughs> bu ko defutoon benn première boobu xam nga daa ko nappaatee. bi ma ko réglé ba pare dama bëgg lépp sedd ñu def. alors dama ñëw yow da nga léegi moom dafa erreur bu réeré il faut bala may wax tontu ne ne parce que la dogoon bala yore ci ñu ma bàyyi ko ba yeggee. Mm. mais parce que yëpp war point par point. Euh, da wax ni la nature a horreur du vide. vide mosul am Sénégal. Abdoulaye Wade da doon dem Paris toog fa deux élection yi. kon bu jox ba Ablaye Bàcc jëlee ko ak danse ko kon bu jox ay vide boo xasee ba taxaw taxaw nga may ma ñëw nag ci waree ah, non may ma non may ma moo na ba may ma dafa yu ma bëgg a liir tuuti da nga wax ni on a assisté à la montée en puissance de Sonko. dëgg ah. la. tey laay wane Sénégal yéen ñëpp. c'est vrai ni Sonko jóoroo laay wane. voilà d'accord mais est-ce est-ce que c'est vrai que Sonko a fait des résultats ou il n'a pas fait. il n'a pas fait de résultats dama lay wan. on a commencé par Préforest élection présidentielle est-ce que il est passé ou il n'est pas passé. dama ne man du ma dogoog kenn dama bëgg ñu may ma ma développé toj. développé. dama leen jox ay chiffres xam nga mon ami Seydou Sané démb c'était l'invité du journal de l'Observateur. C'était le candidat au département de Ziguinchor. Il a été battu par la coalition Yewwi. Il nous donne les chiffres suivants mu ne mu ngi ni c'est mu ne Sonko si vous prenez la commune de Ziguinchor mu ne ce qui nous intéresse c'est la position et l'évolution des résultats de Sonko si vous prenez la commune de Ziguinchor Sonko a eu pour cent mais à Niaguis il a eu 18 pour vingt neuf pour cent à Boutoupa 33 pour cent Ena Poire 17 pour cent Adéane 18 pour cent après Ziguinchor mu ne il n'y a pas eu une seule commune où Sonko a eu 35 pour cent mu ne alors que toutes ces communes avaient basculé en 2019 pour Sonko donc ñoom foofu yëpp amoon na ay 99 pour cent ci élection présidentielle locale bi wàcc ay 13 pour cent ay 18 pour cent ay 35 pour cent Ziguinchor la am 50 Ziguinchor la am 56 pour cent donc mu ne est important c'est l'analyse la courbe évolutive des de Sonko comment il a en fonction du repère qui la présidentielle de 2019 l'électorat de Sonko s'est effrité à Ziguinchor au fil des années. mais maître mais mais a yeggali. Mhm. xam nga Macky n'a jamais gagné Sonko a pu s'installer en 2019 bañ ne moom moom Ziguinchor résultat yi génn gagné na nga mais la mu amoon 2019 amul sax moitié bi ma continuer loolu sans réponse à mon neveu qui parle de la montée de de de Sonko. mais man et comme l'a dit Bamba Fall Bamba Fall. li mu woon gëm sa bopp. même gagné Medina mu ne c'est la victoire de Khalifa Sall ma ne maa ko dégg nekk gëm sa bopp gagné l'histoire victoire de Khalifa kon fii c'est la prééminence de Khalifa Sall à Dakar victoire Yewwi à Dakar Moustarchidine yi la yi nga xam ne ñoom da nga ko ñoo menacé woon état bi ne bu ngeen tëjee Khalifa den dal seen kaw ñëpp gis nañu Moustapha Sy keroog mairie te après mu wane loolu ànd encore ak Khalifa ñu gagné Dakar kon buñ jël victoire ba Sall bi nga xam ni ak Barthélémy Dias man nañ junni yoon Ziguinchor ñu bëgg leen a suul Sonko son ma monté ñoom kay. mais maître xam nga malgré tout ça ils ont ils ont ils ont gagné aujourd'hui nee ñu leen relance non jarul relance oh, li may wax xam naa ko. mais maître vous vous êtes d'accord avec moi. que quand même dama la bàyyi bii ba dama bëgg mu civilisé. waaw ah, dama la bëggoon laaj. danaa ci tontu boo paree nga laaj man bàyyi ma pare damay développé ma. dama ne Sonko bu amee ko xalamu ci élection yi mooy ki tudd Ousmane Sonko la mu amoon 2019 ca Dakar amatu ko la mu amoon parce que ñemewul xam na ne moomul Dakar ñëwul proposé candidat à la mairie de Dakar à la ville de Dakar ti communiqué ëpp yëpp xam ngeen ni. ay waa Khalifa Sall même yow bi ñu wax les jeunes là il est de Khalifa Sall du du waa Pastef les jeunes c'est Issa Samb booy Khalifa Sall la am naan booy Pastef la ni ñu ñeme yàlla. donc boo amee ku reculer grave par rapport ak 15 pour cent yi ma amoon en 2019 mooy Ousmane Sonko ma yeggali ma ñëw ci beneen tontu tontu forox euh, li ma doon ma ne ren ñun ñoo ko ma jox leen benn élément boo xam ne amul werante. werante ku xar sumi ngemba olof Njaay wax léegi fii léeral ba communiqué bii benn bokk yaakaar gis ngeen ko entre benn du benn bokk yaakaar et puis ca may waxee comme sama ne escroquerie politique bi benn bi buntu bi def ak yeneen parti yu bëri yuy abale seen def dafa ay waa APR ñu gañe ñu ne ñoom ñu gañe kon rajo mu ngi nii ñu ne le peuple souverain communiqué de presse benn bokk yaakaar ngeen antenne bi mais nag ils ont entendu. si si. le peuple souverain s'est exprimé ce 23 janvier 2022 à travers les urnes à Ranérou il a pour la coalition Union citoyenne Boutoubi de ces élections locales en approuvant le programme présenté par Amadou Dawa Diallo au conseil départemental et à la mairie de Ranérou, professeur Ibrahim Aka à Vélingara Ferlo, mm. Omar Ba mm. à Amdalaï et Aruna Boudal Diallo à Lugere Choli. c'est une victoire écrasante que nous célébrons avec humilité et exprimons mm-hmm. notre gratitude aux populations de Ranérou qui nous ont accordé leur confiance totale pour apporter les changements structurels nécessaires au développement de Renault Ferlo. Mais maître. Nous, je par la dernière phrase. Nous dédions cette au président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Nous lui renouvelons notre engagement à APRD, qui, ont, qui sont partis avec le rétablissement de Boudoubi. Donc nous dédions cette au président Macky Sall. Nous lui renouvelons notre engagement, soutien et fidélité sans réserve nous réaffirmons en même temps notre ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar et xoolal signe Amadou Dawa Diallo secrétaire général du parti de la réforme professeur Ibrahima Ka docteur Omar Ba Aruna Boudal Diallo. maître maître fait le 24 janvier. d'accord mais maître maître maître s'il vous plaît. qu'est-ce que dama leen bëggoon wax nii. guddi bi même théoriquement bu dee moo c'est comme c'est comme à Tivaouane si moo gagné mais ñoo ko nii c'est Benno Bokk c'est comme à Kolda récépissé Diop si la Mbamboy Diawo demee. mais yéen a gën a xam mais mais mais mais lan moo tax nga bëgg a écarter tey jii lu Théodore Montey wax pourquoi écarter ça comme le président a fait de mauvais investissements mais Théodore Montey je l'aime bien Théodore ci boppam moo taxaw sama boy la mais vous reconnaissez que le président a fait de très mauvais investissements non non non ah. li ma référé mooy ah. mooy xam ngeen ni comme ni ko nag élection boo xam la et dafa bëri woon ay candidature yu bëri président bàyyi leen moom arbitré mm-hmm. ndax bu ma bàyyee set huit liste APR bu nu nekk am kilifa bu ma bàyyee rax ma mu reyanteeg par exemple ma Mariama Sarr kooku reyanteeg keneen mu ne laissez-moi choisir au dernier moment bu ngeen d'accordul ma choisir mais bu ngeen d'accord ci kenn amul amul amul problème da leen bàyyi ki mais bu amee sept généraux ki ci dëkk ba il faut que le chef tranche sinon ça va la guerre recadrement du parti. Mhm. kon Mame Boye Diao la ne ah, maa ko autorisé publiquement. Mhm. ak nee ak certaines listes parallèles kooku moo ko wax nu ma bëgg kon moom xam na li muy def Macky Sall du coono de léegi yow sax nee nga c'était pour récupérer mais contentement ñeneen ñi naroon na votel ñi naroon na votel Ablaye Bibi Diallo par exemple. ci base ci base boobu lañ demee woon kon xam na moom li muy def. léegi nag ma ñëw ci yenn débat yi ak yi ma laaj ma bëggoon leeral loolu. bund bi bu ma nee ka ñu war a ne xëy na récépissé lañ demee comme Soham Wardini moom la demee woon Dakar eh, eh, eh, waaye déglu ma man dama bëgg débat bu civilisé may ma j'ai vu un communiqué de Benno Bokk Yaakaar qui dit que ñoo gagné daa ko gis de ñu ngi félicité président ànd moom kon même bu dee dañoo dem ci ci mund bi le communiqué est éloquent pour dire dans l'escarcelle de Benno si lu les départements qui sont tombés dans l'escarcelle de Benno d'accord ma continuer léegi on a parlé na fi dafa am benn question bu ndaw balaa ngay yeggali ah, foofu may ko rek mu wax la ko après ñu dem man euh, je suis pas du tout euh, je suis PDS man ba nga si Wade et Karim n'existe pas je ne fais plus de politique c'est très clair je suis même pas euh, hmm. mais est-ce que vous reconnaissez quand même que Ousmane Sonko est une réalité politique pourquoi je le dis pourquoi je euh, pourquoi je le dis c'est simplement euh, euh, parce que 2014 la ñëw c'est vrai que euh, Macky Sall il a il s'est tiré à mon sens hein, s'est tiré une balle dans le pied pourquoi il avait dit comme boobu jamono Karim Wade da ma sonal ñëpp a ngi commencé Karim président Khalifa Sall topp ci. waa xaaral rek dama lay laaj. non sa fil laa lay ñëw. je vous ai écouté religieusement. pour pouvoir développer scientifiquement li ma bëgg a wax. may ma rek mettre parce que il a élégance rek pour moi. mayoon naa dama bëgg a wax ni dama bëgg a wax ni. mayoon naa la may naa la man man maa la mayoon. maître mu man man may ma maa la dama bëgg a wax ni Macky Sall a exclu volontairement euh, des mastodontes fogoon ni du am amati réparti. Mm. parce que man gis naa ñoo xamante ni euh, PDS la ñu bokk ña nga ca yeewi gis naa leneen ak leneen est-ce que tu peux pas dire que aujourd'hui il catalyse quand même euh, une certaine euh, euh, euh force, force de l'opposition parce que il y a ni Khalifa qui peut se présenter ni Karim daf la bëgg rek wax ndax tey jii admettre mën nga ne que Ousmane Sonko c'est une réalité politique yow loolu lii fii mais mënuma lii sa bindi Karim et de Khalifa kon xam nga boo bàyyoon dara wax jarul ma di ma laaj man maa doon pare pour développer yooyu yëpp. waaw maître moo tax ma ko jël du perdre ton temps bàyyi ma xam naa li may wax. ci li may wax li nga wax rapidement maître. Mhm. waaye moo di nekku fi ci moom ne saan ya la son sonko parce que bu dee moom amoon na doole boobu. non Macky Sall non El quand même gis nga léegi ça aussi respecte leen nit ñi. amul xam ne amul puissance mais yow mais yow xam nga yow dina accepté la yambar des personnes. yambar Macky Sall kenn du ne yambar la man du ma ne yambar la du ma ko wax. yaay avocat Sonko. non du question avocat Sonko na dama lay wax rek c'est-à-dire que sur les personnes il faut respecter les personnes loolu mooy leen yow tu es responsable respecter nit ñi que ça veut yow développe. faale wu sax. waaw mais mais respecte mais respecte les gens rek. mais du toppati. respecte les gens yow d'accord merci loolu moom j'ai pas accepté. bon ma continuer xam nga war naa la ci livre bind naa ko pare 15 pour cent yi tax muy tiitaru ngan na ngandalu. 7 pour cent minimum bu Karim ak minimum de xalifa la boo ak 1 pour cent plus fort restant mu am 14 virgule muy 15 pour cent mu ñu foo nekk ñëpp ñëpp ko fu yeggul bu xalifa bokkoon Karim bokk ku ca ko loo dee dee dee ñoom dina am plus te koo ma kon li ma wax. lu mu am ni mu ko waxee ñu lañ bokkul tax mu jël récupérer seen i li ko wane mooy ma Khalifa àndaan nii. man gis naa ay waa xalifa yoo xam ne du ma tudd seen tur di ne nañ jàppale Idrissa Seck dañ ma ni élage maanaam défendre xalifa sax ñun ànd ñëw Idrissa Seck ñun Sonko la ñuy défendre la ñuy voteel dem voteel ci Sonko am na ci koo xam ne nga copté ci bureau politique bu Pastef ko gënoon nañ ànd ci ci groupe bu Khalifa Sall bi la. Mhm. ma yeggali leneen. oui sama sister Lafia. bi loolu amee waaw Lafia mais bu ko woon tudd parce que magam ne ne ma li tax ngay tudd sama rakk na ci tudd ma ne ko yéen bu leen tudd mais seen baay li fi def il faut ñu tudd ko. mais yeggali waaw ma yeggali kon xam nga ni kon waa Khalifa yu bëri dañoon jàppale ji Ousmane. s'il vous plaît. waaw déglu ma na fi. mais nañ ko bàyyi mu yeggali nous sommes pris par le temps. Maître, allez-y. dama ni man duma polémique fii ci. plateau bi dama yore idée yu leer yu may développé te dañoo bëgg nëx sar xelu Sénégalais yi Ousmane Sonko ma amoon 15 pour cent dafa dellu ginnaaw ci élection yi ci nombre de voix yi mu amoon Ziguinchor au moins bu dee nag la bataille de Dakar la moom du ma moom moo gañe ku nekk gëm sa bopp ku ñuy wax Baba Fall nee na li mu ko yëbe di daan nee na c'est la victoire de Khalifa Sall je prends l'opinion à témoin kon dana la wóote récépissé yu bëri fii muy ay gëm sa bopp ay bunt bi ay job si bu jëm abal maam mooy jaaw kii appelé rek la woon comme souvent war di ni bunt bi dernier moment la ko récupéré ne ma su gëm bi dafa doon nekk décision Khalifa Sall ba dernière heure moo ne ba ñu naan Bart la Soham la yow dafi ba dernière minute fekk Soham def na plan BM teg di nekk mag bunt bi kon bunt bi dana récupéré tous les gens qui ne sont pas investis mu ne mu la abal leen 15 millions yi mu dugal ba pare. Mm. ak ak ñu ne bunt bi moo nekk fii moo nekk fii kenn nekk ci bunt bi comme raneeru bii du ñu waa bunt bi. gis nga gis nga gis nga en tête bi benn bokk yaakaar ñu ne ñoo gagné yow na def euh, communiqué wax ne parce que. on non ñoom ñoo ko d'accord maître. mais ma ne est mi demee ci beneen parti ku ñu mën taxaw du APR. de victoire APR Kolda. d' accord may ma nag ma yeggali. waaw évoluer le maître. waaw ñu ñëw ci Thiès il faut que évoluer rapidement maître. ñu ñëw ci Thiès am na ku ne ku gagné ak sa Dakar Thiès Diourbel daanaka gagné nga. Mhm. kan moo gagné ak sa Dakar Thiès Diourbel. waaw man bala coalition gagné. Dakar Thiès Diourbel. Diourbel c' est eh oui. Diourbel c' est non Diourbel c' est nous mais Dakar et Thiès. qui a gagné le département de Thiès. je crois que c'est Yewwi. man Yewwi. kan moo gagné Thiès. c'est Benno Bokk Yaakaar. c'est vrai mais ils ont gagné Dakar. Eh, déglu ma as nañu eh, as xam nga man bëgguma ay ay ay ndax ñu toog ci ay maay. Dakar dañuy lax Dakar Thiès Diourbel. Yewwi boo génnee Dakar day taxaw stoppé. Thiès ñëw ci Thiès li ko mën département mooy l'ensemble des communes. du département. kon bu ñor doon voté élection député ñoo jàll député yi. kon ñoo moom Thiès. ah c'est pas évident de. non dama ne évident ou pas. c'est pas évident de mais ñoo ëpp. may ma may ma naa gagné Thiès. mais li nga xam dama ne électorat Sénégal li ci gën a bëri. may ma li ci gën a bëri. mu ngi nekk diggante Ndakaaru. Thiès ak Diourbel nee na dama bëgg a yeggali nee na dama bëgg a yeggali. nee na alors nee na dama bëgg a yeggali nee na. mais nañu ma xam nga lu tax na ma wax. mais nag dama bëgg a yeggali. mais nag yow laa xaaral de. day daaneel rek ma ñëw ci yow. dama ni dama ni validé hmm. man defetu Sonko laa gis ak waa Yewwi à part Dakar gagné wuñ Thiès le département c'est Benno Bokk Yaakaar gagné wuñ Bambey même Aïda Mbodj nekk le département Benno Bokk Yaakaar Diourbel gagné wuñ ko ñu naag sa Dakar ba Diourbel ñoo gagné xam nga lii ay kàcc la boo ñëwee Kaolack gagné wuñ Kaolack waaw waaw waa Yewwi ka fa il est proche du président muy muy euh, sama xarit Serigne Mbour boo ñëwee Mbour benn boo ko yaakaar Cheikh Issa Sall boo demee Fatick. oui mais sànq. mais ma mais ma non damay wax quelque quelque waxoon nga ko les axes les deux axes. mais département national déglu ma rek. limoon nga yëpp département non du ma lim yëpp dama demee woon national bu ñu euh, axes yi importance. il faut que avancer aussi. waaw bu dee axe Dakar Kaolack la. il faut que ñu évoluer Dakar Kaolack Fatick Mbour. il faut que ñu jàll non Dakar Kaolack Mbour. oui. yooyu bokkul. nga jël ak Saint-Louis bi jël Tiwaawoon. mais mais sànq Thiès Tiwaawoon Louga. Moustapha Diop Saint-Louis. il faudrait que ñu ñu évoluer également. d'accord en conclusion. vous vous l'aviez dit tout à l'heure. nañ nañ d'accord en conclusion que même la ville de Thiès Abdoulaye avec le recours mën na ko gagner. donc Babacar Diop gagné gul dara. Abdoulaye ba mais may ma yeggali. Abdoulaye Dieye nga wax donc en conclusion. en conclusion en conclusion. xam nga boo jëlee boo jëlee dans la ville. Abdoulaye Dieye. de Abdoulaye Dieye et de Benno donc day yàq ko kii am 17000. kii am 13000 kii am 10000 en conclusion maître. c'est à peu près 25000 contre 17000. en conclusion Yewwi est minoritaire même dans la ville. en conclusion en conclusion. Mhm. nañ nangu dëgg fii defee Sonko dafa dellu ginnaaw en arrière Khalifa Sall xëy na dellu na ginnaaw ndax la ma taxaw waroon taxaw Dakar ñàkk na ci Grand Dakar ñàkk na Plateau ñàkk na Cambérène ñàkk na Wakaam ñàkk na Biscuiterie. kon Yewwi dafa dellu ginnaaw dafa gën a delloo ginnaaw même taxawu Dakar malgré l'apport de Sonko Khalifa dafa dellu ginnaaw moom li ma amoon Sonko Ziguinchor en en 2019 ci présidentielle amatu ko ci élection locale kon bu ñu nee Sonko fi nekk moo Khalifa dañuy nax seen bopp. par contre en conclusion nee nañ bàyyi di chroniqueur yi di wër plateau yi di wax seetaan naa jàkkaarloo seetaan fii Ndoumbelane seetaan ñeneen bu ñu toogee wax day foog yooyu bokk yi Sénégal nañuy wax dëgg que Benno Bokk Yaakaar moo gagné ëpp nit moo ëpp ay nit moo ëpp ay commune moo ëpp département waaye léegi lu léegi nag kooku fu perte alors oui way way way nañuy wax dëgg waay. cap législative législative. non euh, avec non non. Euh, euh, démocratie. non allez-y. kii laa bëggoon wax tuuti affaire boobu rek mais man. man man dégg naa sama kàddu man wax wax tàgg may leen ngeen wax eh, man kii laa bëggoon wax tuuti rek femme kii. Ah,